إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك أما بعد فأيها المسلمون لقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن الصبر الصبر على البلاء وما زلنا مع هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ومن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم mbokk yi ñu ngi doon waxtaan ci wàllu muñ newoon nañu muñ ñett façon la sabrun ala taatillah muñ ci kaw topp santaane yàlla subhanahu wa taala muñ moo koy joxe wa sabrun an maharimillah muñ te sa bàkkin bañ a def li yàlla tere wa sabrun ala al bala wala ala aqdarillah ak muñ ci yàlla bu dogalee nattu dal la ñetti muñ yi buñ ko boolee nag ci la yàlla wax innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri xisaab mbokk yi muñ wala nattu sunnatun min sunanillahi tabaraka wa taala benn sunna la boo xam ne yàlla teg na ko ci kaw suuf képp ku fi jaar di nga naat di nga may natt sawaan kaana hada al insanu min alsalihin aw min alsalihin yaa xam nit ku baax la wala nit ku bon la natt moom mënul ñàkk lii wutale diggante ku nit ku baax na ku dul ku baax ku baaxul waaye ku gëmul dogal yàlla mooy nit ku baax boo amee natt dañ koy bindal tiyaaba jéggal ko bakkaaram yóbbu ko dara ci aljanna waaye ku gëmul loolu naan yàlla da koy nattu nekk sanction yàlla mbugal ko di ci am tus ci wala tiyaaba loolu moo leen wutal mais ku nekk dina am na ci kaw suuf moom la yàlla di laaj jullit ñi ne ahasiba naasu ndax nit ñi dañu yaakaar bu ñu waxee laa ilaha illa muhammadu rasulullah nekk ci jàmm rek ba dem aljanna ka tariqi mafrush bil wurud comme yoon bu nu ko doroon rafetal ko ba mu jekk ñëw rek gëmm dem aljanna yàlla di noonu de ahasiba annaas qaala abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma almuraadu binnaasi huna fariqan min almuminina kaanu bi makka wa kaana kuffaaru qurayshin yucadibunahum yu'duunahum wa yucadibunahum ala alislam liñ ci jóglu ci naat mooy jullit ñi nekkoon makka waa Quraysh di leen mbugal di leen loob def lu nekk lan moo tax daf dañu nekk jullit ñu am ñu bëgg a saajit yàlla yi di leen aaya bi a xasiba naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanun ndax dañ la jàpp ne boo waxee laa ilaha illa muhammadu rasul di julli di woo joxe àlla te dem aj màkka rek loolu doy na yàlla ne du noonu def wa laqad fatanna alladina min qablihim yàlla ne natt woon naa ñu leen jiitu woon ibtala allahu al anbiya قبل محمد صلى الله عليه وسلم لقد ابتلى الله الانبياء جميعا نوحا وهودا وصالحا وشعيبا وابراهيم ولوطا wa Musa wa Isa wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa kana ashaddu haulai bala'an uli al-azmi al-khamsa nuhun wa ibrahimu wa Musa wa Isa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne natt naa ñu leen jiitu woon ci ay yonent te yonent bi ñoo ñëw sànneef ñi gën ci ñi yàlla bind yàlla nattu leen yow koo jaar bu mucc boo muccee exception la istisna yàlla ne natt naa yonent yàlla Nuux xam ngeen ko yonent yàlla Huud yonent yàlla Saalihin yonent yàlla Shuaybin yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Luut yonent yàlla Muusa Isa am na ñu natt sax ba ñu lay leen ci am ñoom dañu leen génnee suñu dëkk kon natt yàggul yàgg na wala qad fatanna alladina min qablihim yàlla ne fala yaalamanna allahu sadiqin yàlla ko ma xam ni dëgg ci li ñu wax ndaxte la ilaha illa allah muhammadu rasulullah am na ñu koy dëggal wa sabirina fi lbasaai wa sarra wa xiina albaas ulaika alladina sadaqu wa ulaika hum almuttaqun yàlla ne ñii muñ muñ amee natt ci wàllu seen yaram feebar wala ñu am natt ci wàllu ñett am am am wala ñu natt ci seen honneur ñu tuumal leen lor leen dóor leen il faut yàlla xam ndax gëm ngeen yàlla yàlla ne nag ñii muñ nag ci lii ulaika alladina sadaqu ay fi ma qaalu ñi ñëw dëgg ci luy wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah wa ulaika humul muttaqun ñi ngi ñu ragal yàlla kon nag mënul ñàkk fokk mu am daa tudda yàlla ne wala qad fatanna alladina min qablihim ñi leen jiitoon nattu naa leen wala qad kudibat rusulu min qablik wa sabaru ala ma kudibu wa uudu xatta ataahum nasruna wala mubaddila li kalimati llah wala qad jaaka min nabai lmursalin yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah am na ñi nga jiitoon ci ay yonent te nattu naa leen de gaa yi weddi leen lor leen am ñu ñuy rey sax waaye lan lañu def ban ngànnaay lañ amoon fa sabaru xatta ataahum nasruna dañoo muñ saaliti wuñu de bay lay nit ñi mbalam te li yàlla wax du changé de wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina almursalin yàlla ne sama baat jiitu na dinaa jàppale samay samay samay ñun sama yonent ak ñi leen topp kon dañoo nattu ñooñu ñu lor leen dóor leen am na saa yéen moom dañ leen rey wa kayyin min nabiyin qutila maahu rubbiyuuna kathir fi xiraafil imaam naafi am na yonent yu bëri bëri dañ leen rey rayaale ñu bëri ci seen mbooloo wa kayyin min nabiyin qaatala maahu rubbiyuuna kathir xara qiraatu hafsin amma naafi xara xara a qutila am na yonent yu bëri bëri bëri dañ leen rey rey ñu ñu àndal fi sabilillah walakin wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma daafu wa ma stakaanu loolu taxul ñu yokk yokk taxul ñu bàyyi seen loxo taxul ñu arrière dañoo gën a dëgër xam ne leen a digoo lii la kon mbokk yi nattu mënul ñàkk ci jullit même yonent yi yonent yàlla yaxya ak Zakaria dañu leen rey jël si dagg leen qaala abu abdullah xabaab ibnu al aras radiallahu anhu shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa mutawassidun burdatan fi dilli alkaaba wa qad laqina min almushrikina shidda xabaab ibnu al aras ne ñun saxaaba yi ñun ñu ñu ne woon doole day ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jooytu ci moom ñu fekk ko mu suunu ci wetu kaaba ga te bokkaalekat yéefari mag dañuy sonal lool ñëw ci yonent bi ne ko ya rasulallah ala tastanfiru lana ala tad'u lana xanaa doo ñu ñaanal yàlla xanaa joon doo ñaan yàlla ndimbal ñëw wa qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam qad kana man kana qablakum yu'khadhu ar-rajul wa yuhfar lahu fi al-ard fa yuda'u fiha wa yu'ta bil minshar ويدع من فوق رأسه حتى يجعل بالصيف ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء ila hadra mawta wala yaxaafu illa allaha wa dhiba ala ganami walakinakum tastaajiluun ñëw ci yonent bi di jooyatu yonent bi ne leen ah da ngeen yàkkamti de da ngeen bugg a saalit am na ñu leen jiitu woon dañ doon jël benn waay indi ko gas pax ci suuf ba mu xóot dugal ko ci biir indi sii loolu ñuy dajee bant yi teg ko ci bopp bi def ko ñaar xar ko ñaar comme ni nga jëndee sa benn xaar xaar xar ko noonu lañ koy xare am ñoo xam ne dañ leen di fees te fekk ñu ngi dund wa yumsaku bi amsaatin min alhadid ma bayna lahmihi wa azmi ñi ngay feesee sa xar fees nit ki fekk mu ngi dund ba mu wax ba mu faatu te loolu delloowu leen taxul ñu bàyyi seen diina yonent bi ne wallahi giñ naa ci yàlla yàlla dina matal diinam bi ba nit ki hatta yasira raakib nga war sa fas sa war waay jóge sanaa dem ba hadramawt dara du ragal arab sanaa hadramawt fële ci yaman ak sanaa huwa aasimatul yaman mooy capital yaman diggante sanaa ak hadramawt sept cent quatre-vingt-quatorze kilomètres sori na yonent bi ne benn bés jamono dina ñëw nga jóge fa dem ba fële dara du la gaarante loolu am na yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam waaye nag da ngeen di yekkam ci torop da ngeen di yekkam walakinnakum tastaajiluun mbokk yi nattu min alaamati mahabbatillahi lil abd nattu benn mandarga la day wan nit ki yàlla bëgg na ko subhanahu wa taala qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallama inna idama aljaz inna idama aljazaa'i maa idami albalaa maanaam natt bi nga am lu toll noonu lañ lay fay ci tiyaaba wa qaala maa uutiya ahadun ataan xayran wa awsaa min alsabr lépp lu yàlla may nit ki ci kaw aduna li gën te mu gën a yaatu muy muñ maa uutiya ahadun ataan yàlla du may kenn maye boo xam ne gën naa baax gën na bari muñ ndaxte ñi muñ àllaaxira kenn du leen contrôlé innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi gayri xisaab dama rek aljanna kenn du xool fii baax na fii baax dañ lépp baax na nga def ndaxte dafa jafe nag dafa jafe mbokk yi yonent buñ leen rayee ku dul yonent lan lay wax qaala taala afa xasibtum an tadxulu aljanna wa lamma yaatikum masalu alladina xalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول أو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب yàlla ne da ngeen jàpp ne da ngeen tàbbi rek aljanna te li daloon ñële dalu leen dañoo sonnoon dañoo xiifoon ah dañ leen dóoroon am ñu ñu rey am ñu ñu génnee seen réew loolu rek pour am aljanna ñu dem ba ñu tiit sax ne ah ndimbal yàlla kañ lay ñëw est ce que yàlla fàttewuñu wa ma kaana rabbuka nasiya yàlla du fàtte de inna allaha yumhil wala yuhmil yàlla mun naa dalay bàyyi seetaan la waaye du sàggane de inna allaha yumhil wala yuhmil inna allaha la yaajalu ka ajalati ahadikum wa inna allaha la yumli lilzalimi hatta ida axadahu lam yuflitu yàlla yàkkamtiwul xam nga kan moo yàkkamti man de sama dund lii la occasion bi bu ma rëccee dootuma ko amaat occasion bi mel nii mais yàlla du noonu da lay xaal ba nga def lu bëri parce que yàlla du tooñ da lay ba nga def bàkkaar ba fekkee su nu mu la bëggalee tooñu la nga def mu wëddi yàlla ba bëri mu mun laa mbugal bëggal bi nga xam ne moom la namu ci yow kon mbokk yi asabru uddatul mu'min mooy ngànnaay jullit ku amul sabru doo leen fii fii ci àdduna àllaaxira tan doo ko am dara mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu ñaax ci muñ comme ni ñu ko waxee muñ nag nekkul da ngay jébbulu de boo feebaree day dem faju après nga muñ nag boo amee lu la gaaral ci loraange da ngay défendre sa bopp ba pare nag muñ jaa rajul ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallah أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال فقاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت في الجنة قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار lii di wane muñ du yàccaaral da ngay def li nga mën après nga muñ nag dogal yàlla bi ginnaaw bi nga defee li nga mën benn waay dafa ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow mi yàlla yónni bu benn waay ñëwoon pour jël sama alal dama agressé nan laay def yonent ne ko bu ko jox sa alal de bu ko jox laa tuutihi maalak mu ne ko bu ma xeexee nag nan laay def mu ne ko nga xeex ak moom mu ne yonent bi nag bu waa ji bu ma rey nag mu ne nga dem aljanna mu ne yonent bi man nag bu mu ko reyee mu ne mu dem sawara benn agresseur ñëw sa kër nga ne yow doo rey nit wala da ngay jéggul da ngay xeex mun nga jéggul nag mu yóbbu sa alal waaye boo xeexee léegi sim la lan islam moo la ko may mun nga xeex indi sa alal joxuma la ngeen xeex su la reyee nga dem aljanna boo gémmee yàlla soo ko reyee mu perte dina sawar jullit nekk ku yàccaaral qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam almuminu alqawiyu xayrun wa ahabu ila allah min almumini aldaif wa fi kullin xayr yonent bi ne jullit bu dëgër ci wàllu physique moo gën te moo gënal yàlla jullit bu faible gëm na yàlla am na tawxid mun na julli mun na woor waaye dafa lompoñ boo ko laal rek mu daanu ajul boo xam dafa dëgër kooku mooy gën a yàlla subhana taala yonent bi ne nag wa fi kullin xayr lépp nag baax na maadaama gëm na yàlla lépp am na yiw waaye kenn warul yaxcaar waaye bu yàlla dogalee ci yow nag da ngay muñ nga xam ne lii la la dogal ci yow nga xam ne li dogal yàlla mënoo ci dara أيها المؤمنون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحبيب المتقين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء وامام المرسلين وسيد المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في جسده وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئه يرنتبنا نتكي دودن نيكوي ناتو مام اي بلا ay jafe-jafe ci jëmmam ci yaramam feebar ay métit yaa xam da nga am diabète da nga am tension da nga am cancer maanaam da nga am dir lépp bépp feebar joo am boo xam dafay konni di la sonal jàppal ne boo ci dee tan dim yàlla ajjana nga dem shahid nga laa yazaalul balaaw bil mu'mini wal mu'minati fii jasadi ci yaram bi lépp lu la métti nga muñ ko ngir yàlla boo nekkee jullit loolu dafay effacer sa bakkaar te xam ngeen ne bakkaar mooy tere nit ñi dugg aljanna te lépp lu di ni bakkaar mu ubbi na la buntu aljanna wa saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard kon bakkaar la ñuy dindi ba pare ubbi la aljanna ila magfira soog a ñëw aljanna kon lépp loo dal ci tere wu jullit demal yàlla ne lii dafay far say bakkaar laa yazaalu balaaw bil mumini wal muminat fii jasadi ci yaramam wa lidalik qaala allahu taala fi lhadis alqudusi ida btalaytu abdi bi habibatayhi fa sabara awattuhu minhuma aljanna su ma nattoo sama jaam ci ñaari soppe mi ñaari xaritam mooy ñaari bëtam mi wala ñaari gëtam mi yàlla nattu nit ki mu gumba mu silmaxa gisatul te muñ ko ngir yàlla yàlla ne dem koy changé dem koy wecce li mu ko jëlee aljanna maanaam ki yàlla nattu mu silmaxa gisatul amul fay lu dul aljanna amul fay lu dul aljanna kon nit ki am jafe-jafe ci yaramam walla ci njabootam jabaram feebar doomam feebar mu ci sonn loolu dañ koy effacer bakkaaram walla ci alalam alal ji perte wala wàññeeku wala am ko tiliyaande jàppal ne ay tuyaaba la yeneen bi ne du dañ ci jullit bi hatta yalqa allaha ma alayhi xati'a mu dee dajeg borom bi fekk desewul benn bakkaar set wicc ci bakkaar dugg aljanna kon nag bu ñu xamoon mbir yi boo feebaree sax da ngay sant yàlla ndaxte yenn ci saxaaba yi ak taabi'u ne eggal nañu foofu feebar sant ci yàlla subhanahu wa taala parce que xam nañ feebar la lay def ci doomu aadama rawatina nga nekk jullit wa qaala fi hadisin axar ma yusibu almuslima min nasabin wala wasabin wala xazanin wala hammin wala adan wala gammin xatta shawkatu yushaakuha illa kaffara allahu biha min xataayaa yonent bi ne amul benn jullit boo xam ne jafe-jafe dina ko daal nasab coono xëy sa kër six heures matin nga génn pour sa dépense bala ngay wàcc vingt heures wala dix huit heures loolu day far say bakkaar rawatina boo nekkee ku gëm yàlla ngay uti utin bu dagan utin bu sariya nangu jàppal ne boo génnee sa kër yaa ngi jihaad ba ngay ñibbi sa kër wala wasabi wala feebar al marad bépp feebar donte siburu la sax wala dangaa toj soo gémmee ne ni yàllaa ko dogal ci man mu ngi far say bakkaar mu fay say bakkaar wala njàq sax xalaat amoon jafe-jafe lu passé boo ko fàttalikoo doo nelaw wala am lu ñëw nga tiit boo ko fàttalikoo doo nelaw day far say bakkaar yéen bi ne hatta shawka puso bu la jamee sax wala bantu bale jam la ci baaram wala ci tànk yàlla far say bàkkaar kon lépp la teg jaam ji rek jàppal ne jiw la ci yow li ann aljalila laa yaamalu illa bil jamil yàlla mu tedd mi lépp lu mu def lu rafet la ñëpp bokk nañu ànd ne yàlla cofeel bu mu am ci ñun moo ëpp cofeel bu suñu waajur am ci ñun ñëpp gëm nañ loolu yaakaar naa tabax ji doo doo jël dugal la ci ci biir teen wala dugal la sabar mais léeg-léeg sa doom na nga jël karawaas tapp ko tapp ko baalu tax bañoo ko def dañ ko bëgg orienté am foofu bëgg a jëmale dañuy solo ci yeneen yàlla isa ala nabina wa alayhi salatu wassalam kana lahu qaribun jiddan fi da'wa hawarij fa rakiba yawman fa ata lahu as-sab'u ki jegoon yeneen yàlla isa ni abubakar jegoon yeneen yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu jël warwaayam dem gaynde lekk ko ci àll bi gaynde lekk ko moo gën a jóge Isa yéen ci àll Isa ne ko yaa rab ah kii de waziri ala dinik wa awni ala bani israil wa xalifati fihim fa arsalta alayhi kalban fa atala Isa ne yàlla kii moo may dimbali ci diine ji ci daawa bi ci woote yu jëm ci yow te moom may dimbali ci waa bani israel xam nga bani israel say say la yi juif yi yahudi ñoo gën a bët ñu yàlla bind moom ma ci jàppale te mooy sagaru tàkkoon bu mu fi jógee moo fii nekk te léegi nga yabal gaay ni lekk ko nan laa nan laay def yàlla ne ko lahu indi manzilatu rafia lam ajid amalahu yuballighuhu fiha fabtalay fabtalaytuhu bi hada li uballighuhu bi tilka al manzila yàlla ne dem koo dencal place bu kawe ci biir aljanna te gis naa jëfam mun ko faa eggal maanaam jëfam yu baax yi munul egg fi mu ko bëgg a yóbbu ci aljanna léegi ne dem koo nattu nag yabal gaynde nga mu lekk ko pour ma fay ko dommage intérêt ma defal ko dommage intérêt pour mën a egg fu ma egg kon jullit boo gëmee yàlla wallahi lépp da yomb ci yow nekk ci jàmm te bokk na ci ñuy fonk gëm yàlla al imaanu bil qadar bokk jullit yi sabru lu war la même boo gëmee yàlla daal soo muñ say dara bu baax rawatina koo xam ne jullit la boo gëmee ne lépp lu am rek yàlla dagaloon na qabla an tuxlaq anta kon de yomb ci yow waaye da ngay def sama tukaay lépp la mën nga def ko nag après nga muñ lépp loo dal nga xam ne lii yàlla subhanahu wa taala moo ko dogal aaya ji di continuer wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yaalamanna allahu alladina sadaqu wa la yaalamanna alkadibin yàlla dina xam ñi dëgg ak ñu déggul kon jëf ji mooy dëggal sa wax waaye jëf ji tam mooy démentir li ngay wax wax bi kese doyul de il faut jëf ji dëggal ko yàlla ne di tëkku ñi di tooñ nag mu ne ahasiba alladina yaamaluuna sayiati an yasbiquuna ndax ñii di def lu bon di weddi yàlla di tooñ doomu aadama yi dañoo rëcc yàlla dañuy état loolu lañu jàpp xasiba alladina yaamaluuna sayiaati an yasbiquuna dañuy def lu leen lu leen neex nu am lu leen neex déedéet saa ma yaxkumuun ak a bon lu ñuy atte lu ñuy imaginer imagination bu ñaaw la bu bon la yàlla demeewul noonu de yàlla aadil la même waliyu yàlla bu tooñul kéeféer yàlla fayul kéeféer bi ci waliyu kon yàlla ne bu ñu ko jort de waaye nag problème bi fii rek la wa man kaana yarju liqaa allahi fa inna ajal allahi la aat wa huwa samiu alim képp ku jort da tag yàlla gëm nga ne boo deewee da ngay dékki te boo dékkee yàlla dina la xisaab fay la say jëf ah xamal na digg yàlla baa ngi ñëw de problème bi fii la rek wallahi ku gëm àllaaxira dee dekki dina am yéen ñii doo ko dugg doo ko def yéen ñii du la ko jaral man kaana yarju ay yaxaafu liqaa allahi ha fa inna ajal allahi la aat li yàlla waxoon ñëw na de même boo doon dund fi junne at waxuma na koo xam ne ay soixante-dix ans quatre-vingts ans maximum cent ans nga fii dund fa inna ajal allahi la aat waxoon sami yàlla dégg na xam na de lépp loo waxee la dégg na ko lépp loo denc tam yàlla subhanahu wa taala xam na ko dafa man jaahada fa innama yujaahidu li nafsihi képp ku góorgóorlu ngir def lu baax yow yaa ko moom du yàlla de inna allah la ganiyun anil alamin yàlla dafa omal dooyu soxlu daa lañ koy jaam yàlla taatuna la yazidu fi mulki llahi shay'an wa maasiyatuna la tanqusu min mulki llahi shay'an liñ koy jaamu nii di julli di wax def lu baax du yokk dara ci nguur yàlla ci am am yàlla bu ñëpp bu ñu àndoon weddi yàlla du wàññi dara ci nguuram kon nag inna allaha la ganiyun anil alamin lan moo ci nekk walladina amanu wa amilu salihati lanukaffiranna anhum sayiatihim wa lanajziyannahum ahsana alladi kanu yamaluun ku def lu baax gëm yàlla def lu baax ma jégal la say bakkaar fay la lu ëpp li nga def kon mbokki am na benn mulaaxada benn laafita bu ndaw jëf ju baax am na lu koy laal mooy lan gëm yàlla gëm yàlla boo tabaxoon fi ay junni jàkk tabax ay hôpitaux gas ay teen dimbali ñu feebar def lu nekk te gëmoo yàlla yàlla dina la fay def mais fii la ah walladina amanu awwala wa amilu salih dañu gëm yàlla jëf lu baax yàlla ni la defal naa leen defal ñaar dinaa defal seen bakkaar dinaa leen fay lu ëpp li ñu defoon ñu def benn fay lañ ay junni wala milliard waaye nag charte bi da nga gëm yàlla gëm alquran gëm muhammadu sallallahu alayhi wa sallam gëm julli yu juróom gëm makka am na yii nag après ça loo defat yàlla ful ko fay la waaye boo fi defal lu baax nga ngay dundal million doomu adam par jour tabax million hôpitaux million ay ay ay ay école million ay jàkka te gëmoo muhammad gëmoo alquran zéro wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura lu tax ma dugg dugal lii ci waxtaan bi bokkul saa ci muñ waaye damay dégg ñu bëri di wax ah kon gars yi de tubaab bi ñi buñ dugg aljan kenn du kenn du dem aljan ma ne lu tax lu ñuy def ci lu baax dimbal nit ki feebar dañ faj la tabax ay école tabax ay ay ay dispensaire loolu lu baax la def mais fii la yem yàlla moom dafa dafa teg ay charte pour mu fayal ni nga ma koy defale ku nekk am na sañ-sañ boobu kon nag balaa yàlla la fay àllaaxira da ngay gëm yàlla gëm Muhammad gëm alquran soo ko deflee li nga def zéro yàlla du ko naxal allahumma arhamna fa anta bina rahim wala tu'adhibna fa anta alayna qadir waltuf bina bima jarat bil maqadir innaka ala kulli shay'in qadir اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارزقنا الصبر يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصبر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي عذاب الاخره ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله